internet yi buur a ngi leen nuyu tey nag débat bu cuqa cuqa cuqa cuq lañ fas yéene amal kiñ ci àndal booy bi xam nga ko Fadam. waaw waaw yaay cuqali man maay cuqali kii ma sàppali xanaa kon yow yaay ruusi poobaru doom kon nag plateau bi alias poobaru doom ak cuqali ak alias sàppali waaye gars yi ñoo gi fi biir 2S. ñu ngi waajal booy xaw wan wanal mm. gars yi. non ñu. <laughs> gis nañ ko ah, Power doucement rek. yàkkamti ngaa attaqué yàkkamti ngaa xuloo. mais Sappali. waaw Aziz Ndiaye yëngal na game bi. waaw maa ko jëli. defe naa ni loolu bokk na ci say investigation. waa am nga man nag ci àll gi ci seytaane yu mag yi laa yow moom xam nga Iblis dafa am mais rajim dafa am. yow tuddee naa la rajim. mais faram waa kër Modou Lo yi lekkatuñu naanatuñu nelawatuñu nee nañu Aziz Ndiaye li mu wax c'est du mu total ndax Modou loo xeex couronne am alaaji poobaru doom ba nekk roi des arènes nga bëgg fi créer beneen couronne loolu soxor parce que Balla Gaye mbërëm rek Aziz da Aziz fi wax yëpp waxu Balla Gaye sama mbër la fi wax làmb ji roi la am roi bi CNG moo ko désigné woon ca jamonoy Manga 2 ñu ne waaw mais est-ce que roi yii la waaw xataa ba tey roi moo fi ne ndax ka daan mànga lañ lañ daan keneen daan kooku keneen daan kooku keneen daan kooku ba ci fii Tyson daan mànga ku daan Tyson Bombardier ku daan Bombardier mm-hmm. Yaxya ku daan Yaxya bala gay mm-hmm. ku daan Balla Gaye Bombardier ku daan Bombardier Eumeu Sène ku daan Eumeu Sène Modou Lo Modou Lo mooy roi des arènes Aziz dafa wax li mu maanaam moom idée bi moo am daf ko war pour ñu concrétiser ko day dem CNG waaw wax waa CNG ñu xool naka la ñu mën a fexe ba Modou Lo indi couronam teg ko en mettre ko en jeu. Hmm. indi couronam mais ñu mettre ko en ñu jéem a xool nu ñu organiser tournoi boo xamante ne ku ko jël di nga weesu roi mais empereur ngay doon mais diggante Balla Gaye ak Tapha Tine c' est pas à Aziz di teg couronne wala di teg dara pour désigner kan mooy empereur du Aziz moom mooy désigner kuy empereur ci làmb ji. yow buur loo xam nga man Modou d' accord d'accord ak Modou Mbaye déedéet xam naa ko jihadiste la day teg contre-pied mais xam nga man lu ma gëm mooy tey bu ñu nee Modou le roi des arènes la Balla Gaye de da ko daan euh, daan da ko daan deux fois mm-hmm. d'accord nañ ci loolu bu ñu nee Modou mooy le roi Balla Gaye de ko daan deux fois donc buy nekk roi tamit ci kanamu Balla gay 2 wala xëj na da ngay da ngay exempté loo bala gay 2. Balla bi mu nekk roi Eumeu Sène la waaw yaa ngi wax wax seytaane yaa ngi jaxal sama xel de yaa ngi jaxal sama xel bi Balla Gaye di nekk roi Eumeu Sène lan man li ma jàpp mooy waaw man teel buur teel jàppal li ma jàpp mooy li ma jàpp mooy man mi jël Aziz Ndiaye mu wax. Hmm. man ak sama xel mu ñaaw tuuti. Hmm. damaa jàpp ne Aziz dafa am lu mu bëgg. ay pexe moom lan la waxam ji. loolu moom d'accord li ma jàpp ne moom la Aziz bëgg mooy Aziz. daa am benn vision bu muy xaar ci diggante Modou Lo le roi des arènes ak Balla Gaye 2 ak man dama jàpp ne Modou lii mu teg ci combat wu ak Balla Gaye numéro 2 mu ngi am ci combat wu ak Modou bu jeexee. la fay xew la fay xew. mu ngi basé ci combat ak Balla Gaye numéro ak Tapha Tine ku daan. waa léegi El Hadj wax ji nga wax tey na xel waaye ba tey. convaincre ma waaw. dama ne. dama ne. ci xelu Aziz Ndiaye man li ma li ma jàpp ne moom la bëgg a wax. mooy combat wu Modou Lo Siteu. waaw Siteu mën naa daan Modou Lo nekk roi des arènes. Modou mën naa daan Siteu. continuer continuer nekk roi des arènes am. bu Siteu daanee avant Modou Lo di nekk roi avant Modou di jël Siteu. combat Modou Lo Tapha Tine sori woon nañ ci. waaw d'accord naa. fii ku fi nekk waaw yaay choisir ki ngay bëree. mais loolu moo tegul fenn. loolu loolu loolu. loolu yàq la loolu loolu waxi naq saale la. waaw bu mu sa nekk Dakar waaw bu mu sa nekk ci làmb ji. waaw yaay choisir ki ngay bëree. mais nag day toll foo xam ne làmb moo lay imposer mbër mi ngay bëreel. d' accord naa. waaw d' accord naa. dafay fekk ni da nga dañuy toll foo xam làmb da lay imposer mbër mi ngay bëreel. waaw d' accord naa. mais roi buy noppalu ak gi daw tamit. man mosuma ko gis déedéet fii amul roi buy noppalu. déedéet ah Modou day noppalu. Modou si 51 jours la bëre ñaari après après daw tafaati daw tafaatin ñu jox jox ko Siteu faraluma Modou de waaw xam ngeen ne du sama mbër waaw li def ci roi des arènes roi des arènes musuko def mooy la moo ci gën réussir ci 51 jours la bëri de combat da daan Ama balde ci 51 jours jàkku daan ñaari jàkku lamb waaw may ma rek ci 51 jours la daan ñaari meilleurs les deux meilleurs espoirs de la lutte sénégalaise waaw ci 51 jours lu ko tax daw tafati day dawul Tafatine de hmm. est-ce que gis na promoteur bu ko ci fay xali ah kay gaay est-ce que d'accord na ci liñ koy fay mom da non day nopp ku nekk booy dugg ci mbir am ah non ku ne boy dugg ci mbir day am lu tax nga dugg ci tey jii Modou tey jii dañuy waxante dëgg tey Modou Lo bu doon bëreeg Tapha Tine nii pour yéen ay la. mais da ciy laaj cent mu bon bon da ciy laaj cent cinquante millions. ndax bu si daanoo mu xam cent cinquante waaye am na lu ma xalaat ci benn côté. loo xalaat man dama jàpp ne. Aziz Ndiaye am na leen ci benn côté. mooy bi. waaw foofu la yëngalaat na génn. nelaw. waaw Tasis na lu mu ci yee. non comment Modou Lo Siteu moom dama ko yi dama fii lu mu tëggul da ngay nelaw. waaw loolu dëgg la salaam loolu naan mburu la waaye est-ce que jàpp leen nii poobar sàppali mm-hmm. est-ce que jàpp leen nii une ultime troisième combat est possible ci diggante Fawzeyni ak Modou Lo. xaase daanoo sama interview ak Modou Balla Gaye. <laughs> non man tiit naa ci seytaane <laughs> Balla Gaye dama ne ko Balla. Mm. dem nga INSEPS. Mm. pour waajal. nga ne nga ne yow demoo fa pour benn komba Donc vous hmm. dem pour que lan la parce que affaire bi nek ci ginaaw fi parcelle. Hmm. affaire bi fa déranger wala. da non non da koy déranger. da ah, de waaw Modou Lo roi des d' d' accord naa moo liggéey lu tax a moo liggéey lu tax mu war a nekk mais bu nan la ñu wax di dëgg. déedéet ah, ci naka. mais ci naka. mais ci naka. roi des arènes boo xam ni. sa potentiel maanaam ki ñuy wooyee Euh, daan na la deux fois salaire boobu Aziz wax na ko commencé. mais bu déglu ma ko foofu tamit Modou mën naa nekk roi des arènes Balla Gaye numéro 2. ci naka laaj ma lu tax. waaw euh, waxal sàppal may sa xër mi ci njob mi dëkk Pikine. waaw moo daan Balla Gaye numéro 2. ci baat ak tontu. waaw Modou Lo bi mu ko jàppee da koo jox añ ak reer noq léwal ak deuxième. Eh. waaw moom mi eh. moom mi moom mi noq woon ak léwal eh. ak deuxième. alias cukkul yi da koo caxabal deux fois. <laughs> ah eh, loolu loolu kaa la. waaye alias Cuquli moom sëtub Samba Xoyaan bii ci Pikine. waaw Demba Ngom ak Demba Ngor Demba Fëri maa jigéen. moom it da ko Cuquli deux fois ñaar yoon la ko Cuquli. d'accord na maanaam bu ñu peesee affaire bi na kii kii Cuquli dafa am lu am lan moo am dañu roi bi dafa topp. yoon topp yoon ba yegg ci loxo moom. mais li sans problème mooy li sans mooy. sàppali ñëwal jox ko li sans problème buur. Hmm. mooy am na lu gars yi di nëbb. déggoo li ma la wax. buur daa am lu ñu Balla Gaye numéro 2 waxoon Gambia. <laughs> maa ciy jaar. lam ñu waxoon ci keroog keroog man la alaaji buur géwél mbaay mi waaw waaw Séeri Jackson ak Moussa Ayda Diop bàyyi Adja maan ak ñaamaar. dëgg la dëgg la fa la fekk alaaji sàppale mi keroog. walaay ndeysaan walaay fekk l'ex lion l'ancien lion. Balla Beye Mborodi. <laughs> Mborodi ancien Mborodi ancien ñu toog ca néeg ba mu ne ma buur ancien Mborodi mu ne ma buur. Mm, mm, mm, ma ne ko mu ne ma jàppal baax li ma lay wax. mooy lan lan la waxoon. Eumeu Sène ak Tapha Tine mi dinañu bëri. waaw. ma ne ko dëgg la mu ne ma Tapha Tine dana daan Eumeu Sène. Balla Gaye la wax loolu. billahi déglul ma yeggali programme am la doon wax ne ma buur. waaw man quoi mu ne man ak Tapha di dinañu bëri. léegi après. te dinaa daan Tapha ne ma buur. noo taxaw léegi waay waay xaaral ma révélé. say wax waxi xalaatam mais xaaral ma révélé yow tamit. xaaral ma révélé. da ngaa mu ne ma buur ma tegal la ci bu mujj. dinaa bë dinaa bëri ak Modou Lo te dinaa ko daan yaa fekkee maa fekkee bakkan lay laaj. maa yaa fekkee. bi ko waxee bi ko Balla gay waxee dama ne ko Balla gay <laughs> mu ne ko Modou Lo mi nga daanoon ak Modou Lo mii ma gis muy bëre du benn. waaw Modou Lo mee nga daanoon Modou la woon. Modou la woon waaye kii. professionnel la. mais xam nga sax man wax as lu ma jàngate euh, Poobar dafa ubbi sama xel. mooy Aziz. Poobar saf na de. waaw Aziz am na beneen. Poobar Aziz dafa non moomoo Aziz dafa am. beneen projet au-delà de sa déclaration en fait <laughs> en fait ñun man nitu man en tant que nitu làmb yow li dérangé wala naaj bi man en tant que nitu lamb je hmm. remercie Aziz Ndiaye waaw profondément maa koy remercier bu baax hmm. parce que parce que déjà bi lamb dafa amone ay jamono làmb am fu mu nekkoon hmm. Aziz moo indi ci niveau bi waaw mo yé ci quoi waaw ñu jékki-jékki dem affaire bi jafé jafé am Père Gasson ñew bi Père Gasson ñewé Aziz la ak mom, d'accord Aziz effacé naan mburu comprendre nga. Hmm. ñuy liggéey ci làmb liggéey boo xam ne liggéey bu am solo ba pare bëgg a jàppale làmb. Hmm. parce que yenn combat yi ak yenn affiche yi nit bu koy tëgg. Hmm. kooku dafa bëgg affaire bi ñu nekk mu kawe. dafa bëgg niveau làmb yéeg te dañu waxante dëgg. dëggante diggante 2006 ak de ak tey jii nii. làmb yëngu na fi ba taay de mais nii mu mel nii nii nii gën naa mel nii. man man man man mais Aziz léegi nag ci biir loolu yëpp. bi Alburax defaree loolu yëpp ba pare. Aziz am idée maanaam classement la bëgg a defar. classico classement classement. Mm. classement lamb ji la bëgg a defar classement. Mm. pour ñu xam kii mooy kii. kii mooy kii kii mooy kii mais classement boobu. classement boobu mënoo koo def à l'insu du roi des arènes. mënoo def classement boobu te Modou Lo. ñëwul reconnu ce roi là Momo. CNG mu reconnaître woon Manga non Modou Lo mooy le roi des arènes. CNG mu reconnaître woon Manga damay laaj damay laaj. waaw CNG mu reconnaître woon Manga. CNG mu reconnaître woon Manga. boobu ba tey ku fi daan roi ñun la roi nga. te amul kenn kuy génn weddi ko. mais man li sama problème mooy li sama problème mooy bëtu Aziz Ndiaye. Hmm. mu ngi ko tekki ne maa tëgg combat bu am visibilité di Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine. waaw. man Aziz combat bii ma tëgg di Balla Gaye Tapha am naa accordu Balla Gaye am naa accordu Tapha Tine ndax maa tëgg Tapha ñaari yoon. Modou Lô le roi des arènes amoon naa accord tëgg ko ak ñakk ko accord mu bëril jàmbaar. waaw Siteu amoon naa accord am mu bëril jàmbaar. waaw ba pare mi ngi ak avance ndax day bëre saa Ama Baldé. léegi nag am na leneen lu nekk ci suuf. ñëwal sàpp muy Modou Lô Siteu ku daan bu dégganteeg Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine bëri ba pare. Aziz am na mille cent ak sponsor yi doon wax ak couronne ba mu teg mu teg ko ci diggante ki jël roi des arènes ak Balla Gaye numéro 2 Tapha Tine te te jox na ko ñaar ñëpp nag jox Ama Baldé avance jox si te avance booba al alburax mooy dirigé ah. Ama du dirigé si te du dirigé ko neex bu tey jii lamb dafa toon foo xam ni man tey jii doon Mansour Ba Mansour Ba mu ngi ci gem bi waaw mu ngi ci gem bi mu ngi ci gem bi Ba non mu ngi nelaw moom ko méthodique la fekk Mansour Ba ah bu doon si yàlla si Gaston Mbengue fëgg na micro yi ba yàgg deux ans la dafa gum ci làmb ji. yàggagu fi yàggagu fi. te aussi ñu ngi koy félicité. ndaanaan la ndaanaan la ñu ngi koy félicité parce que. mi ngi fiy tëgg journée yoo xamante ne nit ñëw na fi. huit ans te tëggu ko fi trente ans te tëggu ko fi mi ngi yób tëgg na combat royal. Mhm. ndax Modou Lo wax dëgg yàlla mooy loolu. mais dafa laa bëgg expliquer. Mhm. fi mu toll nii nii nii nii. Mhm. Aziz Ndiaye li mu wax daf ko wax benn. ci mooy agent wu Balla Gaye. mooy papaam mooy léppam. comprendre nga ñaareel bi daf koo wax ci bëgg a dimbali Balla Gaye maanaam bëgg fexe Balla Gaye ñëwaat ci combat royal wala ñu ne Balla Gaye roi des arènes Balla Gaye numéro 2 mën naa mel ni marathon looy wax ni yow question baa ngoog nag mais yéen lu ngeen di wax mais question da nga koy laaj ne technique xam nga avant moo dem avant moo dem fi mu toll nii Modou Lo bëreeg moom yombul de non xaaral rek poobar eh. avant moo dem noonu ay Modou de dóor na fi benn mbër góos boo xam ni Modou Ari Modou Ari xam nga Modou dama la ni Modou ku nekkul ku nekkul jihadiste doo bëre ak moom muy des booy ñoo ngi ñëw waay booy da ngeen noon dàq seen plateau bàyyi leen ñu yeggal suñu yëf dama ni waaw waaw donc fii dàll bi rek laa bëgg mu jëlal ma ko barki kan Sëriñ Bamba xalil Diamond Tools da leen jox Diamond amul ay marakis <laughs> ay <laughs> papa am na daalu mag ay alden wuyu ma comme yi eh, alden zaar bii laa soxla ma ni bëgg ngeen déglu ma

te wul ak ya oustaz bu deewee ba ñoom ko maari fara du tàlli yàlla na yeex barki borom deewee li ma lay wax ni dama la ko bëgg wax hmm. nga deg ko hmm. amul ben mbokk tafatin. Hmm. amul ben estafu tafatin ba ci am ne mu tafaatin ba ci Côte d'Ivoire waaw jàppuñ ne Balla gay de mën na am ci lu toll nii ki tafaatin waaw démb de benn séeréer wax na eh, eh, waxtaan leen ma wax ma wax démb de ben séré de wax na mako lum la wax xol na ma wax ni may bur gewel ma ngi nga nan balagay Simba Simba Simba bilaay bark rok si bu ko tafati ne puusal day pous man ñom sérel séeréer si nag ina okki na ah, pogum nak ah, tiit na ci lol trop buur non mais man tiit na ci ah. ndax Balla gi numéro 2 demb gis na ben vidéo am boo xam ne ah ak gaaya diggante Balla gi numéro 2 tafaatin combat la bo xane ni hmm combat la bo xane ni nak lamb wat bay wat xel mo ci bay xel Eh, ah, dama lay coob waaye am ci lamb ci titre roi des arènes yëpp combat Balla Gaye Tapha ko indi. waaw booy na jub xoolal fii naraa gi jub jub naan mburu lii lii problème mu lamb ba léegi man Modou Mbaye hmm. mooy tey jii ni mbër war a communiquer ndax man Modou Mbaye foofu tamit bëgg naa la faal ak en tant que yow mi nga xam tey jii euh, gis nañu yow yaa ñu gën nekk à l'aise ci télévision. dama gis ne Modou Mbaye communication léegi dafa bokk ci làmb hmm. niveau communication fi mu toll ci vous yi tamit nga ci am ci diggante Balla Gaye Tapha dafa melni biñu il ci eu dafa am niveau bu mu yobuat lamb bu bokku tak fi lamb 2010 lamay fi la lay jox rek ci ba ba président ay communication bi a été le pièce maîtresse barke Rasulullah parce que loolu daf ci am solo. parce que mënoo nekk ci géew bi yow mënoo nekk ci géew bi kumpa am fa nga bëgg a wax kumpa bi. déedéet mm-hmm. déedéet yow garaawal ko rek neen li may dégg li may gis ay ñii li ñuy waxante. keroog boo xool dafa relance euh, Balla Gaye de question bi deux fois. deux fois est-ce que say supporters nee nañu. Mm-hmm. est-ce que Balla Gaye de seen mbër mënaan bëri di daan ba tey Balla Gaye nag Balla borom jikko la. dugg ci orgueil bi dugg ci orgueil bi waaye lii laa bëgg waaye. waaye nag am di Moustapha waaw keroog de say na. waaw xam nga tey gi lii problème bi. buur euh, xalil yaakaar naa ne li foofu ñu nekk am na solo. Hmm, capal de. Balla Gaye li muy nekk ndaaraan nekk ndaaraan nekk naan dafa tafaatil daa mën a wax ci kanamu Balla Gaye numéro 2. gaa ko daanoon kañ la commencé mën a wax ci kanamu ci kanamu Balla Gaye de yàggul. xam nga kañ la ci mën a wax non yàggul yàggul xam nga kañ la ci a wax. waaw Balla Gaye de jàkkaaru tafaatil ne ko maa daan xalil mu ñëwul fii ci man. Ah. waaye Balla Gaye numéro 2. Balla Gaye numéro 2 daa daan tafaatin waaw waaye Tapha Tine daa def lu raw daan Balla Gaye numéro 2. mooy lan après bi ko Balla Gaye daanee après bi ko Balla Gaye daanee. mooy ñëw mi daan Balla Gaye. daan ma <laughs> daan Eumeu Sène mi daan Balla Gaye ñaari yoon. daan Serigne Cheikh Yirim bi daan Moussa Xirim ci njob. <laughs> Ah, kooku am na lu mu wax ci diggante ba Balla Gaye. waaw xam nga Balla nee na. Hmm. Tapha Tine daanul Bombardier décision arbitre la. nee na daanul booy ñaa décision arbitre la nee na Eumeu Sène daan moo wax booboo naqari séeréer si nag. naqari na bool dëgg. wax booboo naqari bool. léegi naka la Eumeu Sène bëreeg Tapha Tine Tapha Tine daan ko ba pare Balla Gaye naan Tapha Tine daan Eumeu a daan boppam. loolu xam nga tooñ la. waaw nag mi ngi tooñ koo xamante nii fi nii. mentalement psychologiquement man parlant laay wax quoi bu fekkent ne li ma yaakaar moo ne ci moom. Hmm. non mi ngi mi ngi koy defante koo xamante ne nii hmm. bu dee li mu affiché moo nekk ci boppam. ah pare na ci côté mental. Hmm. parce que Tapha Tine combat yi ñu ko doon gagné lu ci ëpp mental la eh laa waxoon ca jël benn. waaw xam nga ko doon gagné. waay nii nii nii nii. il a hmm. un mental de fer. nii nii nii jàpp na ni. vingt Balla ci kanamam. Hmm. moo leen mën jàpp nga ni ceeb ba ceeb jàpp nga ni ceeb ba nekkoon ci moom effacé wu na sur les deux premiers minutes de chaque combat. waaw effacé wu na. ndax Tapha Tine bu at bi dina xaajale Balla Gaye dox ci kaw wala su lay tànk day dem ndax man dama jàpp ne Balla Gaye numéro 2 day dox ci kaw Tapha Tine Tapha Tine est venu pour corriger Balla Gaye léegi dégguma Modou Mbaye Tapha Tine seen laa la wax Tapha du toog Balla Gaye di ko di di di diriger combat am Tapha du toog di seetaan Balla Gaye di diriger comba am Tapha Tine du toog di seetaan donte du yàq combat am nag mais li Balla Gaye defoon ba daan ko Tapha Tine du seetaanaat loolu di am mais est-ce que ñëw pour bëreeg moom def li mu bëgg def sànni ko lii Tafatin du nangu loolu bool dañ ko war a génne bool Tafatin ba pare ak ba pare bawal li li nekk passé la xañ tere tere na la waa bawal de wallaay wallaay waaw waaw waaw waaw tere na la waa bawal loolooy wax ji loolooy wax ji nag gis nga gaañi balaa maa tëj fii te Tafatin daa jël Balla Gaye pour wane ni li nekk parcelle moo ma tere nelaw kaful de xale tëjal ñu loolu déedéet bu ko tëj bu ko tëj daa fi def may ñëw sàppale déet man fi ma bëgg a ñëw est-ce que fii fii plateau bii moo tax ma bëgg mu tëj loolu ñu ñëwaat ci leen waaw acca coupé loolu nga ñëw tëjal loolu mbokk yi <laughs>